برهام باء وراء ألف ثم هاء ميم مجلفيد تيجان جخن نينام يا ولي الله بي مونيو ماي تي نيتي wéttale ko alquran jàng alquran di seetlu ay maanaam di taxaw ci ñaan ci ñaanukaay yi di ñaan di taxaw ci barabi muslukaay yi di muslu yooyu kéwal yépp yàlla xéewalal nañu ko ci ñetti fan yii yonent sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ki gën ci yéen mooy mbooloo mi nga xam ne ñu ngay dajee ca néega bi yàlla ya di jàng téereem bi di ko xalaat waaye dégloo leen di xalaat xalaat yu kawe yi nekk ci alxuraan te yëpp dara nekku ci. dara nekku ci. defar nit. lu dul nit. lu dul nit. lu dul nit. ci teraanga bi yàlla yi nga yàlla may na ko nit. yàlla wax na man yàlla teral doomi teraanga jooju yàlla daf ñoo wax ne nañ yëngatu ngir àgg ca yëngatu yooyu nag ñu sentir yàlla sant ñu mooy jàpp ci suñ loxo wax ñu nu ñu koy defee muy leral goo xamne daf ñuy nital di ñu jubbanti di ñu dëgëral di ñu may waxtu wu nekk ay yaakaar yoo xam ne di ñu dëggalal yaakaar yooyu itam loolu may alhamdulillah bi ñu ko nekkee ñetti fan yii di ko joxe ci jumaa ji di ko joxe ci jumaa ji te yàlla wan nañu teraangay Sénégal ne roy te ngeen ñi bokk ci kaamil bi yépp ci àddina bi doon ko jàngandoor ñun ci Nigéria ca Ghana Burkina Faso Niger ba ca France ñoom and ànd nañoo ñun ci ñetti fan yi di jangandor ak ñun alquran fi wa senegal yi ag ci gem yalla ci bëgg yalla ci nangul yalla lolu yep teranga la bo xamne jagleel Sénégal. yàlla moo ko jagleel Sénégal. sëriñ bi ne. may ñu ñu yëg teraanga boobu. yàlla may ñu ñu yëg teraanga boobu. ndax ñu mën koo sant. boo amee teraanga yow jàmbi te mënoo sant yàlla. dangay ñàkk googa teraanga rek. ñu ngi góorgóorlu nag ci cant gi. ñu ngi góorgóorlu nag ci cant gi. cant yàlla rek la. mooy comme jotaay yu mel nii cant ak yàlla rek la. bésu fan yi passé yëpp sant yàlla rek la. bésu fan yi passé yëpp sant yàlla rek la. sant yàlla boo xam ne ànd naag. sant yàlla boo xam ne nag ànd yow yàlla. yow yàlla. say jaam a ngi nii. sant nga leen. sant nga leen. nee sa téere. bi. daje nañ ci barab ak suñu ñàkk doole ak suñu ñàkk xam-xam ngir topp sa ndigal loolu nga wax ci sa kaamil bi yow yàlla say jaam rekk lañ nag jaam yu bëgg lu nekk te xamuñ dara waaye yow buur bi am nga yow yàlla mën nga ñu ngi tàllal suñuy loxo di la ñaan yow yàlla yal na nga ñu méngoo yaara bi ci zahir ak ci baatin yow yàlla yal na nga nekk di suñ dimbal yaara bi ci lépp loo xam ne bëgg nañu ko te mu baax nga dimbale ñu ci yow yàlla ñu ngi lay ñaan lépp loo xam ne ragal nañu ko lor nekk ci yow yàlla yal na nga ñu ko soril yal na nga ñu sàmmal suñ Sénégal ba ñun ñëpp ñu ànd ndax liggéeyal Sénégal ñu ànd ñun ñëpp waxandoo liggéeyal senegal moo ñu war ñun ñëpp ci baati ku nekk la nekk nekkul ci baati Macky rek Kawlax nekkul ci baati sëriñ mbub mi rek Kawlax bu nekk Kawlax mu ngi ci sa baat te liñ la sant ci Kawlax googu mooy ñuy dimbalante lépp luy yokk Kawlax ak yëkkateku ci alal ci xam-xam ci wér ci njàng yëpp ñu ànd ñun ñëpp dimbalante ci sëriñ bi ne wax na ne Sénégal yàlla teralee na ko ne bëgg na diine lool bëgg diineem googu ñu xam ci ñoom ci àddina bi sëriñ bi ne Soudan gii mu demoon barki démb rek doon seen xeex booba ñu daan def. seet nañ lu nekk pour mu génnee leen ci. seet nañ lu nekk pour mu génnee leen ci. lu nekk dugal nañ ci seen loxo. lu nekk dugal nañ ci seen loxo. ñu nekk. ñu dugal nañ ci seen loxo. dugal nañ ci seen loxo ngir atte leen. waaye mënuñ ci dara. ñoom ci seen bopp ñoo xam ne. lislaam rek moo ñu mën a génnee ci lii. waaye gis lislaam fan. l'islam au Sénégal Sénégal lañ yaakaar ci diine gis nañ fi jikkoy diine yoo xam ne ñu fexe ba toxal bu fexee sàggan ba toxal ko fi buñ fexee ba toxal jikko yooyu fii kon lépp loo xam ne ci jàmm mën nañ koo am bon moo tax ñu ooñu ñu dem waxtaan ak ñoom sëriñ bi ne waxtaan wi wax ak ñoom yëpp génnut lislaam génnut alquran génnut wax yu yonent bi sallallahu alayhi yëpp ñu ko bu baax a baax a baax bi ñu ndax liñ yaakaaroon ne lislaami Sénégal rek moo baax ci ñoom alhamdulilah ba fa sëriñ ba demee yàlla won na leen ko mu wax leen ci biir wax gannaaw bu jotaay yëpp jeexee ñoom ñëpp ñu teg seen ngànnaay ñoom ñëpp ci jàmm mu ne leen gis ngeen ñun jullit ñi ñun africain yi mën nañoo utal suñu bopp ay solution te duñ ci soxla dimbali kenn waaye fekk nañu ko ñoree nag waaye fekk nañ ko amee yéene waaye fekk nañ ko amee xam-xam waaye fekk itam nañ ko xamee xam lañuy def lan la mën nañoo dimbale suñu bopp mën nañoo faj suñuy problème te kenn du ci dugg waaye ana nit kooka ana nit kooku lañ soxla mu ñëw pour mu ñëw ñun ñëpp ñu àndaat buuraat tabax Sénégal goo xam ne Sénégalu bëggante la Sénégalu dimbalante la sénégalu jàmb jàppulante la sénégalu nangul yàlla li mu dogal la sénégalu nangul yàlla waaye lu dut loolu ay xuloo gaañante tóorante ci mbedd mi loolu ban njëriñ la am ak fan lay àggale réew mi réew réew mi la fay àggale fa mu àgg ak la ko fay àggale daana wax ne ku bëgg a liggéey sa réew na nga xool ci ñaar ñii ci Kaolack muy Baye Cissé Baye Ciss euh, ak monsieur le maire Serigne Mboup def nañ Kaolack loo xam ne politiciens yu bëri jaar nañu fi waaye jaarut sax ci seen gént ne loolu mën naa am ñu def ko ñëpp jàkkaarloog moom booy génn Kaolack da ngay kontaan di nga gis ne sa réew a ngi yëkkateku di nga gis ne am na xale bu fi dëkk xam na li nit xelloo ci réewam yàlla jàppandalal ko emalewu ko ci boppam mu ne yéen ka waa Kaolack yëpp kaay leen ñu bokk ko yéen waa Kaolack yi wéy na yéen waa Sénégal yëpp kaay leen ñu bokk ko Serigne Buub bi mu dugagut ci politique moom itamit def na loo xam ne Kaolack ne waaye yéen waa Sénégal yëpp yéen ko moom bëgg liggéey sa ñu gis. kuy bëgg a liggéey sa réew dangay liggéey ñu gis. Baye Mbaye daan na wax ne wax ji doy na. Baye Mbaye Niass daan na wax ne wax ji doy na. liggéey rek. liggéey rek. imaam dina koy wax lu bëree bëri. imaam dina koy wax lu bëree bëree bëri. wax ji doy na. liggéey leen ñu gis. liggéey leen ñu gis. loolu nag moom lañ soxla. te lu yomb la ci senegal ku ay góoram yu ko taxawee matee bu ko ay góoram yu taxawee réew mi matee am kattan boobu am doole boobu am bëgg bëgg googu nekk pour seen réew Sénégal barke bu nekk ngi fi tegtal baa ngi nii bi ñu ubbee kaamil bi fii ci Kaolack mu gën a sori ci ci Sénégal sax man ca pegg Sénégal. mu gën a sori ci Sénégal sax mu nga ca pegg Sénégal. dégg ngeen bi ci bokk yëpp. dégg ngeen nañ ci kaamil bi. ñëpp bokk nañ may ñu. ñun sénégalais yi. dëgg de xalaat. war ngaa xalaat bala ngaa jéem Sénégal lu baaxut. ndax boo koy ci sa kaw rekk lay këppu waliw yàlla yu baax yi téere bi yàlla bu kawe bi ñu am fi ñetti fan guddeeg bëccëg mag ñi góor yi ndaw ñi jigéen ñi ñëpp daje ci jumaa ji ñii nekk seeni kër ñii nekk ci biir réew mi nekk ci biti réew def te ñu koy def ci biti réew. du ay sénégalais yu fa nekk. du ay sénégalais yu fa nekk. waaye waa réew mi seen bopp ñoo koy def. seen bopp ñoo koy def. ngir ànd ñun ci suñu liggéey. ngir ñun ci suñu liggéey. ànd ak Sénégal ci liggéeyam. ci liggéeyam. kon yii. yëpp yëpp. suñu ci Sénégal. suñu xelan ci Sénégal. Sénégal gii ñuy dund léegi. Sénégal gi ñuy dund léegi. te mu am ay jafe-jafe lool kenn xamatut fooy jaar lu dut di lambatu rek ñëpp dañuy lambatu dañuy lambatu rek waaye ñu ngi ñaan yàlla ci barke alquran ji ñu wàccee fii yal na yàlla dëgëral Sénégal yal yàlla jubal Sénégal ci yoon woo xam ne njëriñam mën a nekk la xam ngeen boo amee góor ñu ko taxawee sëriñ bi ne mos na wax ak benn président ci président Sénégal yi Sénégal gii baatin bu rëy la am addina bi yëpp nangul nañ ko baatin boobu nag zahir su yem noonu moo ko war a topp te mu ngi ñëw boo amee ay góor ñu intègre yu dëgër yu bëgg seen réew nekkuñ di doxal di ñu indil rek waaye dañoo xam seen réew ak xam-xam bu ñor ñu liggéeyal ko amul sikk ne zaayir soosa dana feeñ ci réew mi. ñu ngi koy yaakaar ba léegi ci ñi nga xam ne ñoo jiite Sénégal. ñu leen di ñaan. di leen ñaanal yàlla. yal na yàlla may. yal na leen yàlla xamal leen ci seen peuple bii ngeen di sàmm. tuut peuple bu ndaw de. peuple ay wàlliw yàlla ñoo fi ne. wàlliw yàlla yi jeexuñu de. wàlliw ci baay de. yemut ci baay de. yemut ci keneen. yemut ci keneen it. fi léegi yàllaa ngi fi. ay jaamam di fi nekk. wàlliw yàlla yi di fi nekk. ñi ko xamut utuñu ko. amuñ ci benn seetlu. ci benn cër. amuñ ci benn cër. te seetlu wuñ ko itam. te wuñ ko itam. yal nañu yàlla sàmm. yal nañu yàlla sàmm. ñu xam ay may yàlla yu tuuru ci suñ kaw waxtu wu nekk. ñu xam ay may yàlla yu tuuru ci suñ kaw waxtu wu nekk. ñu mën koo ñu ci jëf. ñu mën koo sant ci wax. ñu mën koo sant ci wax. ñu sant ci jokkulante. ñu mën koo sant ci jokkulante. ndax ñun ñëpp. Sénégal rekk lañ bëgg. lañ bëgg ñun ñëpp Sénégal lañ bëgg mu àgg fu réew mën a lu réew mën bëgg nañ développement boobu xam ci Sénégal. muy tukki ne buy tukki ci biti réew yi. ba gis ay yu rafet a rafet ci mbedd yeeg. tali yeeg. discipline beeg leeraay beeg dafay wax ne lii bu ma ko mënoon a toxal kawlax léegi te bu ko mënoon noonu la koy defee noonu la koy defee pour Dakar ak pour Sénégal yëpp sëriñ bi ne bëgg na ko ci xolam sénégalais yi itam bëgg nañ ko ci seen xol yal nañu yàlla jox ay moyen am nañu yàlla jox ay moyen yoo ñoo xam ne mën nañ lu bëree su ñu amee xolam mën nañoo liggéey lu bëree bëri comme li Baye Ciss def comme li Serigne Mboup def bam nekkagul politicien xamul nag politicien nu muy mel léegi waaye yàlla boo teggi sa tànk yàlla bul teggi sa tànk ci noonu la doon def ndaxte loolu lañ soxla moom lañ soxla ci daara yi moom lañ soxla ci politiciens yi moom lañ soxla ci ñuy jàng suñu réew dolleeku suñ mbedd yi set fi mu nekk nawet baa ngi ñëw sëriñ buub des na tuuti benn waa Mérina dootul mën a tee génn ndax inondation inondation beeg pax yeeg yépp de l'indépendance dara soppeekuwut te ñëpp a ngi wax ne dañoo am xam-xam ay intellectuel lañ ay intellectuel lañ nangam ak nangam ak nangam sëriñ ne toog naag ay borom xam-xam mu ne leen man ñëwuma jàngal لونين قمر نيوما نيوما نك بروفيسور تي سان كاو نك بروفيسور تي سان كاو خمنا اي بروم خم خم ген ندك خمنا اي بروم خم خم ген اي ريو والي يالا ген اي ريو اي والي يالا ген ريو اي والي يالا ген من موتاخ داما نيو من موتاخ داما نيو من اك سماي موكي افريك man ak sama ay mbokki afrique niger yaangi Sénégal a ngi nii caada ngi nii dañoo bëgg a xam xam-xam boobu ngeen am yépp ana feeñuwaayam feeñuwaay gi ndax mooy reyante ndax feeñuwaay gi mooy noonoo xante loolu warta doon feeñuwaayu xam-xam bon nag ku am xam-xam dañuy won feeñuwaayu xam-xam tabax yëkkati jox nit ñi yaakaar waaye du tiital leen du terror du merloo leen rek ci waxtu wu nekk waaye nañ jéem a góorgóorlu ñu jéem a liggéey sëriñ bi ne dem na barki démb kër ma jebel ne am ku ko wax ne ko sëriñ bi dañoo ñàkk. ñàkk rek moo ñu indil lii yëpp. ñàkk rek moo ñu indil lii yëpp. ko ñàkkuñ dara mais wax dañoo tayal tayal rek moo sëriñ bi ne ko ñàkkuñ dara dañoo tayal da ngay wax ne tayal rek moo ñu indil lii lépp. ba pare bëgg am lu nekk. moo tax ku nekk dina la nax. moo tax ku nekk dana la nax. kon sëriñ bi nañu ngi ñaan yàlla pour suñ Sénégal gii yal na ko yàlla ñoŋal ci yal na ko yàlla dimbale ba ay doomam xam ne ba ay doomam xam ne lu nekk am nañ ko mën nañ ko nekk am nañu ko mën nañ koo am te ci seen biir réew mii lañ koy xamee nekkagul réew mu màgg ba am industrie bu mag. nekkagul réew bu mag ba am commerce bu mag a mag. nekkagul réew bu mag am commerce bu mag a mag a mag. waaye ñu ngi ci yoon incha allah. waaye ñu ngi ci yoon incha allah. waaye li ñu am nag nañ leen ci jàpp. mooy mbay mi. foog ñu bay am lu ñuy dundee. yéen a gën a xam fi mu ne okraani. yéen a gën a xam fi mu ne okraani. la fay xew kenn xamul lu ci bàyyee ko ñun pour julit ñëpp ak pour ñëpp itam waaye la fay bàyyeekoo nit ko waaye la bàyyeekoo nit ñi di ko xaar yombut de de war nañ ci bàyyi xel bu ba a baax war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax bàyyi nag mooy nga ut loo lekk sa suufa ngi mën na la koo jox sa suufa ngi nii mën na la koo jox sa sa ndoxa ngi nii man na la ko jox li nga koy utee ji ca àll ba utee si ko ci sa suuf utee ko ci sa ndox te suuf sant na ko bu la doomu aadama laajee jox ko te suuf si yàlla sant na ko bu la doomu aadama laajee jox ko bon nañ laaj suñ suuf li ko yàlla sant nañ laaj suñ suuf li ko yàlla sant suñ borom xam-xam yi nañu góorgóorlu wan ñu feeñu waaye xam-xam suñ borom xam yi nañu góorgóorlu wan ñu feeñu waaye xam-xam feeñu mooy dooleeku feeñu waaye xam-xam mooy dolleeku. feeñu waaye xam-xam mooy dëgër. feeñu waaye xam-xam mooy dëgër. feeñu waaye xam-xam mooy am am mooy am dignité. sa bopp yëkkat. ci sa bopp ci sa bopp. ak ci sa réew. ak ci sa réew. yal nañu yàlla dimbale. ñëpp laay ñaanal ah, ñëpp ñëpp ñëpp laa bëgg ah waaw xam naa leen li ñu ngi ne maa ngi leen di gis ndax xam naa liñ bëgg xam naa li ñu ut ah maa ngi ciy ànd ak yéen maa ngi leen ciy ñaanal maa ngi ci ànd ak ñoom sëriñ bi ne politiciens yi ñoom ñëpp mu ngi nii dajeeg ñoom ne mu ngi janoog ñoom di leen di gis mu ngi leen di ñaanal yàlla ñi dëkk ak ñun ñi dëkk ak ñun yal na yàlla dimbale leen ñoom ñëpp ba ñu nekk modèle ci société bi. ci société bi. ci société bi. nekk modèle pour tout le monde. nekk modèle pour tout le monde. adduna bi yëpp. góor dafay bëgg dara dafay bëgg dara góor dafay sëriñ bi ne góor dafay bëgg dara. góor day bëgg dara. bëgg lu ma lekk bëgg lu ma naan bëgg lu ma tiitaroo waaye bëgg ma lekk bëgg lu ma naan bëgg lu ma tiitaroo rek. loolu doxul góor. loolu nañ leen ko bàyyee jigéen ñi te am na jigéen sax ñu ko nanguwut bon nag ñu ngi ñaan yàlla bu baax a baax kii di Mon Ndiaye Rahma kii di Pape Demba bi tey kii di Serigne Mbuub monsieur le maire affaire ma bàyyi politique. déedéet bu ko bàyyi déedéet ndegam ndegam bi ma politique laa liggéey lool. bàyyi ma delluwaat ci ñaanal ma ñaanal ma ñaanal ma maire bi ma bëgg. mën ngaa yokk leen mën ngaa yokk leen yàlla na yàlla dimbale leen yaaram yi. dimbale ci kaw la. dimbale leen ci kaw la. dimbale leen ci seen sama position. sëriñ bi ne position yam. mooy dama respecté sumay institution réew. président de la république. ba ci alkaati bi ci mbedd mi. ba la ko xamal. alkaati bi bu ne ko sëriñ bi jaaral fii foofu lay jaar. du ma weranteeg moom. ndax xam naa ne moom mooy réew mi bu boobaa réew may wax ak man te waruma jàdd kàdd réew mi yal ñu yàlla dimbale yal ñu yàlla sampal suñu réew sëriñ bi ne mu ngi leen di encouragé itam ne bu ngeen déggee ay wax yoo xam ne du noonu it na ngeen xam ne waxut leen moom dafay ku wax yal nañu yàlla jëriñ sëriñ bi ne mu ngi gërëm suñu waa jumaa ji ne mu ngi gërëm imaam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé radiyallahu anhu ne mu ngi koy gërëm ci taxawaayam taxawaayam àgg na fu taxawaay na fu taxawaayu góor di àgg. ne taxawaayam àgg na fu taxawaayu góor di àgg. taxawaayam àgg na fu taxawaayu borom xam-xam di àgg. ne taxawaayam àgg fu taxawaayu borom xam-xam di àgg. ñu gis xam-xamam léegi muy rek ci nit ñi. ne imaam Cheikh yaa ngi gis xam-xamam mu ngi koy jëf rek ci nit ñi. mu ngi feeñ ci nit ñi fu nekk euh, koy jàppale. ne mu ngi gërëm ñu koy jàppale ci jumaa ji. imam Mouhamad Cissé dafa tukki yàlla na ko yàlla indi ci jàmm. sëñ Ousmane Cissé ngi nii. fan yële tamit taxaw na taxawaay bu rëy. sëriñ bi ne mu ngi koy wax ne ko taxawaay yu gudd yooyu attana tuñ ko ndax fi mu nekk nii ay màgget lañ. dañu xamal leen rek dañu xamal leen rek. boo ko def dañuy dawal incha allah macha allah imam nee na ku nekk jàng Fatiha benn yoon ñetti salaatul Fatiha